xam nañ ni am na nit ñoo xam ni ñi ngi nekk ci hôpitaux yi di nekk en instance di xaar am na ñoo xam ni balaa seen rendez-vous jot faatu parce que tout simplement xaar ba dafay yàgg kon dama bëgg ñu xam ni loolu lu am solo la tey ci dispositif ci matériel bii ñëw tey matériel boobu nag dialyse ñëpp xam ni utilisation bi yombul yombul mais dinañ waxtaan ak sunu médecin chef de région ba ñu xool population Mbacké waxuma Mbacké rek mais région bi yëpp nu ñuy def ba nit ñi jëriñu ci en tout cas loolu moom xam naa ni du doon lu ñuy régle fii mais danañ ci waxtaan et bu boobaa danañ ko jottali askan bi fan lañ ko teg ak ñan ñoo koy jëfandikoo ñan ñoo koy utiliser comme en tout cas technicien ci biir loolu indi na fauteuil dentaire nit ñi bés bu nekk seen bëñ di matti ñu dem ci dantist bi fauteuil yi fi nekk naxam baaxoon na mais dafa indi fauteuil dernier cri boo xam ni lépp lay am day am rajo bi ci biir liy raxas bëñ bi fi muy dem salte bi lépp donc moom fauteuil dentaire dernier cri la su fekkoon ni mënoon nañ koo indi kon dinañ ko indi sax ngeen gis ko mais dajjeeguñ ko ndax il faut montage technicien bi échographie aussi multifonctionnelle échographie appareil échographie bokk na ci matériel bi boobu tam dernier cri ba pare portatif la en même temps bu la neexee nga am jigéen joo xam ni bëgg nga ko seet léegi nga détaché ko dem ba ca lalam nga dem seet ko waaw parce que man sama wax fi ma koy accès mooy matériel bi li muy jëriñ kon loolu moo tax ma gën a jël kàddu pour leeral loolu li nit ñi ci biir loolu am na ay lits d'hospitalisation bés bu nekk am na ñu daan jooy naan lal yi fi nekk depuis ca euh, temps wu xaw kañ la woon ba léegi certes amoon na ci diggante bi ñu doon indi matériel mais xëy na lal yi dëgëraay ba mu war a am amu ko mais kii lii électrique la ñu indil lal bu nekk ak la muy jëriñ ka am cardiaque ka am beneen feebar lépp lal bi da nga koy branché rek régler yow yaay xool ndax dangaa bëgg bopp bi jóg wala tànk yi nga bëgg mu jóg waaw kon nañu defar sunu sunu dëkk bi defar centre de santé bi di wax lu baax ci centre de santé bi bu ëllëgee nit ñi ñëw sawar di fi faju mais nit bi na am ñu yàq ko ba nit ñi dootuñ ko jublooti te xëy na demeewul noonu parce que Mbàkke médecin yu xarañ ñoo fi nekk médecin yu xarañ ñoo fi nekk am na ñeenti médecin yu fi nekk yu dul man man consulté wu ma mais am na ñeenti médecin yoo xam ni ñu ngi fi nekk en permanence 24 heures sur 24 ci biir loolu am na ay médecin contractuel spécialiste am na cardiologue am na ORL am na gynécologue kon alhamdulilahi rabbil alamina médecin yu ndaw yi sax ñu ngi defaat renforcement de capacité pour yokk seen xam-xam ci yeneen docteur Diagne ngi nii toog di sama adjoint moo toog nii dégg nga kon Mbàkke man bi ma fi ñëw li ma fi fekkoon du ma rus bu ëllëgee bu may dem ak li ma fi bàyyi. daanaka tey su fekkee ne am naa possibilité tey indi matériel Mbàkke nit ñu bari daje nii c'est parce que moom moo ko yombal. am na taxawaay bu mu doon am boo xam ne bu ko amoon xëy na du demee nii te loolu day wane générosité am wane grandeur wane ne moom c'est un homme d'état te. gudd yuñ toll ni Sénégal dafa rafle homme d'état loolu dafa jafe di nuyu la jeunesse di nuyu Serigne Mayib Seck président conseil de euh, conseil de la jeunesse comme conseil communal de la jeunesse bu fàttewu ma nag waa avenir de Mbacké sama gars yi le monde sportif euh, monsieur le maire euh, li mu la waxoon rek la dernière fois bi ñuy def remise de bi ngay defar cérémonie de de don du mat de des camions newoon naa le ne man de damay indi sama pierre à l'édifice Mbàkke daf ma defal loo xam ne mënu ma koo fay damay jéem rek mhm. ba ñu indee oto mbalit yi ñu waxtaan ci nga wax ma ko damaa man la ma def ak la sama poos man jàpp ci parce que waxoon naa leen nee naa loo nekk ci laa nekk ci dinaa la jàppale te ñëpp nañ teg seen bët ma ne la suñu jógee ci cadre de vie mooy set setal dëkk bi set dañuy song lu mel na santé na ma la ko waxee woon noonu laa ko defee di remercier au passage l' de Finlande et la Finlande ma xar sama tànk duggay jug Finlande sori na trop sedd sori na te sedd na yaa jàpp naa ne ci dëkk yi gën a sedd ci àddina bi ci la bokk ma jug dem lijjanti fexe ba am matériel boo xam ne dëkk boo ko mën di yóbbu nit ñi dinañ ci mën a jariñoo balaa ma doon def loolu dama laajte mel Mbengue mu ngi nii toog moom mooy président conseil président comité de santé bi mu ne ma Mbàkke day am na ay jumtukaay yu manqué lu ci mel ne dialyse même bu fekkee ne euh, centre de santé bi amagul possibilité accueillir dialyse mais manqué nañ ko mu ne ma jigéen ñi bu ñuy mucc dañuy am problème pour ñu xoole leen seen biir pour seen doom yi mu ne ma dëkk bi manqué na ko tegal ma ne ma aussi centre de santé bi manqué na table dentaire pour nit ñi dañuy am ay problème mu bëñ parce que lekk gi léegi baaxatul ma jël loolu dug xaar sama tànku duggee jënd samay billet avion wër àddina bi ba lii mën a am ma indi ko ci dëkk bi ma leen di xamal ne nag yéen waa Mbàkke lépp lu Mbàkke amul rek xamal ne jomb leen ko war ngeen ko mën a am Mbàkke dëkk bii la Serigne Touba juddoo donc dëkk bu mag la ci dëkk yi. bu dul dëkk bi gën ci dëkk yi moo tax man muy santé muy leneen lépp lu ma mën a gis luy jariñ Mbàkke dinaa ci dox dinaa ci xar sama tàmp tubéy lépp lu ma mën dinaa ko def pour Mbàkke te lépp lu may def it dinaa ci ànd ak monsieur le maire parce que mooy borom dëkk bi moom la waa Mbàkke wóolu ba fal ko moom mu neexul na xari moom mooy meeru Mbàkke lu waay di def nag soo bëggee niñ xam ko da ci ànd ak moom te man ànd naa ceeg moom. Ah. li ma ci ni ma koy tënkee daal mooy gën ne jàpp leen ne Mbàkke tey man may ambassadeur Mbàkke dinaa wër dëkk bi lépp loo xamante ne si Mbàkke am na si jumtukaay war na koo soxla dinaa ci xar sama tànk bay ba Mbàkke am ko jërë ngeen jëf. nañ jàpp ne ñun dañoo bëgg incha allah képp ku jàpp ne war ngaa ñëw jàppale Mbàkke war ngaa taxawu Mbàkke dañ la ubbi suñuy bunt yaatal la yombal la say démarche ba li nga ba li nga am yéene indi ko Mbàkke ci wàllu santé ci wàllu éducation ci fànn yëpp loolu yomb la ba mu ñëw jariñ Mbàkke kon monsieur Badiane jàpp naa ne jërëjëf mënul weesu jërëjëf waa Mbàkke ñu ngi lay remercier pour cela et vous remercie également pour les actions que vous avez eu fait que vous avez eu que vous avez eu à faire antérieurement madame le médecin chef ci yow laa daanale di la remercier bu baax pour également effort yi nga def ci au niveau du district sanitaire de Mbacké je l'ai dit à plusieurs reprises parce que on a eu à mener à faire un compagnonnage lorsque j'étais le directeur des ressources humaines du ministère de la santé et à cette occasion et pendant ce temps nous avons fait beaucoup pour le centre de santé de Mbacké li ma mën a wax nag te nga te ma ci mooy par rapport au-dessus santé de Mbacké fan yi di ñëw incha allah une mission du ministère de la santé dina ñëw notamment la la DIEM la direction des infrastructures et des équipements médicaux et de la maintenance bu ministère de la santé dina ñëw Mbacké pour xool nu ñuy yokkee centre de santé bi ba def ko hôpital de niveau un loolu je peux le le ministre de la santé waxtaan naa ci ak moom ba mu jox ma son accord de principe et normalement dans le budget de 2023 incha allah on va procéder à l'extension de Sam Sarr pour en faire un hôpital de niveau 1 afin de relever le plateau technique loolu daa bokkoon samay engagement yi ma jëloon ma ne bi may wër dëkk bi loolu nag ñu ngi dox pour mu sotti kon maa ngi sant waa Mbacké yëpp di wax ne que tey. ci fan yi di ñëw incha allah dinay woo waa Mbàkke yépp defal leen un bilan à mi parcours wax leen li ñu def def ci dëkk bi wax tamit les projets en cours du occasion bii la ñuy profité pour di ko wax am na ay entreprise man maa leen bind lettre wax leen na ñëw dans le cadre de la RSE mooy la responsabilité sociale d'entreprise pour ñu ñëw jàppale Mbàkke ñu ngi defar école 2B école Cheikh Ibra te yeneen projet mi ngi ñëw pour Mbàkke la maison de la jeunesse commencé commencé liggéey bi le centre de formation professionnelle bokk na ci budget forma ministère formation professionnelle pour Mbacké am centre de formation digne sa loolu man dong doyuma ci dëkk bi tout le monde en tout cas la main à toutes les forces vives de Mbacké au sens large pour quelle viennent appuyer les initiatives de la commune de Mbacké pour qu'elles viennent supporter la charge extrêmement lourde que constitue cette ville, notamment les besoins et préoccupations, et préoccupations de la population. Et dans ce cadre-là, je remercie M. Bayan et Maïgram Nyep,